yéen kaay yi xëy yeggee euh, revue de presse complète bi mun ngeen ko am ci seen chaîne Télé Sénégal TV Vincent Gomis ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame. di la dalal jàmm. Euh, jërëjëf maa ngi lay fay di la nuyu. Mhm. di leen remercier ci invitation bi. Mhm. di nuyu aussi ñëpp ñu ñuy seetaan ci. Euh, Télé Sénégal TV. jërëjëf yow yaa ngi bokk ci coalition xalifa président. Mhm. ak euh, taxawu Sénégal c' est mhm. bien ça. c' bien ça. alors nga teewal leen fi tey pour ñu waxtaanee tolluwaay réew mi ci wàllu politique notamment dialogue ba ñu woote woon ca jam ñaajo barki démb ak démb président de la république jiite woon ouverture bi ñu doon fa bëgg a xool euh, nu ñuy def ba jàpp date élection boo xam ni euh, ce sera une date consensuelle mais aussi lan mooy xew après le 2 démb conclusion yi ci nga fekk ni ñuy débat mooy euh, ña doon dialogué daal nee nañu na président tëgg élection yi le 2 juin Euh, mais aussi transition bi am ci diggante bi maanaam diggante 2 avril ba 2 juin na ci président Macky Sall euh, des maanaam mu toogandi ci réew mi ba booba lan moo ci seen réaction yéen euh, wala yow ci turu taxawu Sénégal xalifa président. waaw jërëjëf ci ci question bi je pense que d'abord ñun suñu position mooy ci dëkk. Mm. ci république. Mm-hmm. dialogue dafa war a nekk lu permanent. moo tax ba ni ñu tëggee suñu dëkk ñun mm-hmm. dafa am ay kuréel yoo xamante ni permettre nañu en permanence ñuy am dialogue muy assemblée nationale mm-hmm. euh, muy au conseil des collectivités territoriales mm-hmm. muy moom euh, au conseil pour le dialogue social kuréel yu mel noonu dialogue dafa war a permanent ñun en tout cas taxaw Sénégal ay nitu dialogue lañu dafa di euh, li président woote dëkk am na fu muy toll loo xamante ni euh, si les l'intérêt supérieur de la nation est menacé mm-hmm. mën nañu comprendre mën nañu accepter que ñu woote un dialogue national ñu tuddee ko dialogue ñu tuddee ko concertation ñu tuddee ko assise euh, woote waxtaan mm-hmm. en tout cas ñi bànqaas yi nekk ci dëkk bi yëpp mën a dajee waxtaan kon yéen dialogue bi bii am nii ah. bii du dialogue c'est un simulacre de dialogue mm. parce que li xew mooy ñun ñëpp muy président mu neex ko mu nakari ko je lui retourne son terme dañu war a tënku ci li nga xam ne constitution moo ko tëral mm-hmm. ak conseil constitutionnel lu baat li nga xam ne moo koy dogal mm-hmm. mais président ñu gis deful loolu dafa bëgg a daganal maanaam nu nga ko junjee ci sa wax mm-hmm. euh, mandat bi nu muy proroger mandat loolu rek lay wut a daganal def ko organiser nag un simulacre de dialogue ku nekk dem foofu ñi naan ko yaa fi gën a rafet yaa fi war a toog mhm. ñi naan ko 2027 et tout. boo demee ko ñuy bàyyee eh, mais <laughs> pour dire que dañuy foye foye réew mi et ça c'est c'est pas bien il faut être sérieux dans ce qu'on fait boo demee ba toll nekk ku toll ni président de la république mm. booy wootee lu mel nii dafa war a ànd ak sérieux mais attitude du président sax moo lay wan ni li ñu doon def c'est pas sérieux ñi ngi reetaan fii xàkkataay fii kenn jëlu jëlu fa kàddu wax li nga xamante ni ah en tout cas ils sont rares wax nga ko docteur Tine wax na ko je pense Modou Guiro ak ñeneen ak mm. ñeneen. Mm. élection dafa sérieux et l'heure est grave. l'heure grave au Sénégal on vote depuis les années 1700 mm. donc depuis le 18e siècle mësuñu am situation bu mel nii à 10 heures du du démarrage de la la campagne électorale nga xëy ne dàkk naa élection yi alors que rien ne le justifie la preuve ñu ngi doon ne dañuy soupçonner une crise entre les institutions de la République benn crise amu fi. la preuve yow nee nga da nga am ay suspicion de corruption au niveau de du conseil constitutionnel mais yow alors que le corrupteur bi nga xamante ni moom la ñu wax sax le lendemain tu lui renouvelles sa confiance ta confiance sa premier ministre ce qui veut dire que c'est pas sérieux mais, un pays on doit sérieux d'accord maintenant suñu ñëwaatee ci dialogue parce que sànq dama dégg nga ne simulacre de dialogue mhm. lan moo ko def simulacre de dialogue li ko def simulacre de dialogue c'est déjà un dialogue doit être inclusif lu tax demoo inclusif kon lu tax demoo leen ah lu leen non objectif yi ñu visé moo tax ñun dañu xamoon ni lii la en tout cas ñun lu ñu dem teew ci loo xamante ni dañuy crédibiliser li président bëgg a def parce que li président def c'est pas normal loolu sénégalais yëpp d'accord nañ ci parce que même président dafa war a tënku ci lu conseil constitutionnel dogal. parce que bu ngeen demoon euh, kàddu yu contradictoire yi ngeen fa yëkkati. ça n'allait pas peser sur la balance. duñu ko jël en compte. la preuve yaa ngi ko wax sànq. ñun ñi wax nañu wax dem de gauche ñi dem à droite mais en, en fin de compte président daf leen wax li ngeen di wax fii sax du loolu la ñuy dogal ah, donc moom xam na lu muy def donc moom xam na lu muy def xam na nu mu koy defee mhm. ñun aussi nous sommes dans notre rôle nous allons nous opposer à à volonté manifeste de vouloir euh, s'éterniser au pouvoir mhm. donc loolu la. pour rebondir sur la question de Jérôme. Euh, mmh. président Macky tey lu ñu ko mën a wax aussi xam nañu ne mi ngi bàyyi opinion euh, xel opinion internationale bi. parce mhm. que jooytu na li mu tuddee campagne de dénigrement ni ñu koy mbambee bitim réew yàq deram est-ce que yéen. Euh, comme foofu tribune la woon boo xam ne ñu bëri jàpp nañu ne mhm. lim ci jublu woon mooy won àddina ne moom day waxtaan et que luy génn fii moom la ñuy dogal yéen lu tax demoo leen wax nañu waxee ñoom ca na saxaan parce que am na yenn passage yoo xam ne français lañ fay wax loolu communauté internationale bi lañ jàpp ne ñoom lañ ko jagleel maintenant dàgg sante bi nag la koy def ci sunuy làkk mhm. lu tax demoo leen fa suñu yëkkatee kàddu ci kàllamay français wax loo xam ne mun na euh, euh, seetal deram ci communauté internationale yéen tam ngeen wax leneen même bu fekkee xam ngeen loolu mais que vous continuez parce que la bataille de l'opinion aussi elle compte en politique non la, la bataille de l'opinion xam nga bëri na ay canaux yoo xam ne mën nga foo mën nga foo waxee dem fa déjà symboliquement yow da ngay crédibiliser le président def parce que ma wax naa la baatu sérieux un état c'est du sérieux ça doit être dirigé avec sérieux donc li mu woote nii simulacre de dialogue bi y a aucun sérieux président ci attitude am sax ci ni mu toogee alors que yow yaa ko wax l'heure est grave oui. Sénégal aujourd'hui mais nous vivons les pires heures de notre démocratie président am latitude toog toog toogaayam. toog bàyyeeku wéeru bàyyeeku wéeru <laughs> fii reetaan fii loolu c'est pas sérieux. le langage corporel am na lu muy teg parce que bu amul fee am commentaire. bien sûr bu demee ba muy wax ni opinion internationale y a une campagne de dénigrement et mm. tout. c'est parce que ñun ñu ngi laal fu muy méttee et on va continuer on va continuer avec nos stratégies. xeex ak moom fii ci biir Sénégal ak ci mm. ak ci ci bitim réew. est-ce que xeex boobu noonu doorewul woon comme ni ko Fatou waxee man ma gën a taxaw foofu noonu parce que tamit ñoo ngi déglu ci <coughs> ci yeneen panel yi mm. euh, ñenn ñi sax di ŋàññi opposition ci li nga xamante ne noonu la may opportunité président def la ka neex parce que suñu nee dialogue boo xamante ne ñeneen ñi sax naan monologue boo xamante ne président ak ña fa nekkoon ñu ci bari la mu bëggoon dégg lañ ko daal di waxal mais pourquoi pas opposition bi yéen tamit ngeen takku ba dëgër dem foofu noonu kii su dalee gauche kii daal droite kii su dalee gauche kii daal droite de de telle sorte que président Macky Sall xam ne les kaddu yi nga xam ne ñoo fay gën a jib nar a gën a métti nar def tole jigool ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom te ñu bari ci làngu politique bi ànduñu ak li xamante ne moom moom la bëgg a def. non xam nga ñun euh, président Macky Sall ñu ngi koy pratiquer depuis douze ans xam nañu nu muy doxalee yaa ngi dégg euh, dialogue national bi passé ñun taxaw Sénégal dem nañ ci. dégg nañ ci lu nekk dégg nañ ci dañuy deal ak yooyu yëpp en fin de compte gis nga fi mu ñu fi ñu indi. lépp li nga xamante ni jiinoon nañ ñu ko ni dañu bëgg xalifa am amnistie euh, dañuy dem di dile ak Macky Sall pour euh, légitimité son troisième mandat yooyu yëpp amul. Mm. yaa ngi dégg mais dafa di xeex ku nekk aussi ak nu ngi koy mënee. ñun mm-hmm. aujourd'hui au niveau du F25. Mm-hmm. ñi ngi xeex ak candidats yi nga xamante ni ñoom la conseil constitutionnel retenir. Mm-hmm. à l'exception de deux ou trois. pour continuer euh, pour continuer xeex bi. avec les moins dont nous disposons parce que ñun taxawu Sénégal suñu particularité mooy ñun dañu républicain suñu candidat le président Khalifa Ababacar Sall c'est un républicain c'est un légaliste. aujourd'hui conseil constitutionnel mooy juge de l'élection. conseil constitutionnel donc lépp lu am dogal euh, dogal bu war a jib jëm ci élection yi conseil constitutionnel moom la incombé te moom moo koy jël. ñun tënkuwuñu ci lu lu dul li conseil constitutionnel décidé. Mhm. et donc euh, à ce niveau là ñun ci loolu lañ tënku et combat bi ñuy mëne ci euh, foofu lañ koy mënee. mais kon kon jàppoo ne li nga xam ne moom la ñu moom la ñuy do moom la ñu jot a waxtaanee démb ba tënk ko ba président ñu nar ko ko jox ci kayit mu xool ko càmb jébbal ko assemblée nationale te nar leen a yéen en tant que candidat kon gis gisoo leen ne loolu war ngeen cee war ngeen cee jox importance war ngeen ko jox importance. déggoo man la simulacre de dialogue la. ñun on ne prend même même su fekkee simulacre la dina leen impacté. ñun loolu ça ne nous engage pas xam nga lu ñu engagé. Mhm. mooy aujourd'hui ñu nekk ci république. Mhm. tënku sur les lois et règlements yi nga xamante ñun ñëpp euh, maanaam ci la ñu war a tënku. Mhm. mooy conseil constitutionnel mooy juge de l'élection Euh, gis nga suñu mandataire euh, barki dem dem na déposer beneen recours ci conseil constitutionnel mm-hmm. donc comme nu ma waxee nous sommes républicains et légalistes mm-hmm. à temps voulu lépp li xam li nga xamante ni war nañ ko def ci mm-hmm. cadre boobu dinañ ko def ak fi ñu ko war a defee donc loolu moo ñu engagé seen xaakataay boobu show boobu fële ci Diamniadio <laughs> ça nous intéresse pas yaa ngi toog ah mais <laughs> loolu la wax nañ fa aussi